cabadu guy guy gi moo yor ngeen lu weex li Babou lu ñuul li ayca jël na ko Babou jël na tànk ba Badou Gouy Gui ma ngay bañ ayca Babou bal bi rëcc na hey dona na ko tànk daan na wa wa waaw kon ni Babou Faye ne na bi daa dis de fay kam campement ma fan bo bonga jangar fay ma fan kon ni anya ñaaj a ñaaj njogoy de o yo